mbokk c'est une émission les vertus du Coran Madame lepp luy ngëneel ak njariñu téré bu sel bi al Nul karim ak sen radio RFM Al ju ne 11h ci goudi ba minuit ngeen di ci ak Abdul Karim Ba.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

وتقضي لنا بها جميع الحوائج وتكون لنا بها وليا في الدنيا والآخرة أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير أيها المستمعين والمستمعات في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الخميس ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نولين دي زيارة الخميس جي فوائي مناني دي زيارة كلفة ديني أكلفة دي دي دنيا لليال جامعك سترة دي زيارة نيكي أبيتو يتوير ديال نالين يال دلو سنساكو waaye di ziara ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal waaye di ziara ëttu diine yi nga xam ne waa ala kulli xaal saa su ne suñu ñëwee dañ leen di ziara ñu ngi ziara waa Tiwaawan yëpp di ziara waa Tuuba xalifatul aam li al muridiyati ñu ngi koy ziara di ziara Sëriñ muntaka mbake di ziara señ Bas Abdul Xaadir di ziara waa Tiwaawan yëpp sëñ ñoom Maodo si alxalifatul am taifati tijaniyati ñam ñep ñu ngi len di ziara señ bay si ñu koy ziara bu baax waaye di ziara it wa kër Ibrahim nyas wa kër bay Niass ci kawlax ñu ngi len di ziara di ziara wa ndiasan di ziara khalifa ndiasan Euh, sëriñ maam bu kunta ñu ngi koy ziara bu baax waaye di ziara it waa jàmmalaay ci appel bi nga xam ne bi mooy seen trente huit cent trente huitième appel Seydina Isa Ruhullah ñu ngi koy ziara bu baax ñoom it di ziara usratul omariya waa kër omarul Fuuti waaye di ziara waa Nimzaat waa kër Cheikh Saadu Abihi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara waa ala kulli xaal di leen bàyyi xel di leen nemmeeku di ziara waa Cenaba waa kër euh, Amari Ndaak ci Cenaba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara ala kulli xaal ñu ngi ziara ba tey sunu xarit Sidi Seck di ko ziara bu baax di ziara Adja Ndiko Fall ak borom këram Adama Ndiaye di ziara Adja Khady Si ci Jaksaaw Adja Mati Diaw cité des magistrats Mouhamadou Moustapha Yali ak soxnaam ñu ngi koy ziara mu jibu lay moo di Ndiaye. cité wa cité DPV ñu ngi leen di ziar bu baax alhaji Pape galo Badiane sunu xarit sunu kolëre ñu ngi koy ziar bu baax alhaji Pape galo Badiane di ziar alhaji Maxataal ca Italie di ziar Madiagne Gueye fi Nafisatu Ngom ñu ngi koy ziara di ziar Adja Fadima Taal alhaji Diop ca Touba di ziar abdul Aziz Ndiaye ca Tiwaawan Serigne Maodo Sy ca Tiwaawan ñu ngi koy ziara bu baax Oustaz Ndiaye ci rajo Dunia bu Mbour ñu ngi koy ziara Mamadou Ndour di ziara Pape Pape Diop waaye di ziara amin Diallo ci Thiès ñoom ñëpp fàttewuñ leen euh, Adama Jaxate ci kër Demba Ngoy ñu ngi leen di ziara Njaxateen al waa kër Xaalima Jaxate kala yëpp ñu ngi leen di ziara di leen ndokkeel wa ala xaal euh, ci alxames ji comme niñ ko daan defee di ñaan yàlla yàlla yàlla def sunum rew jàmm yàlla na yàlla def ci sunum réew jàmm yal na yàlla def sunum réew jàmm mbokk yi ñu ngi dellu siwaat kal aadati fi kulli yawmil xamis yi alxamis bu jot ci waxtu wi fas yéene ànd ak yéen comme niñ ko waxee woon balaa ñuy sori ñu wax leen fu waay ma na ci réew mi moom xam bitim réew nañu bàyyi xel ci qul yaa ayyuhal kaafiruun ñu di ko jàng fanweeri yoon ak ñett mu nekk loo xam ne nii daf ñuy aar aar suñuy njaboot ci xale yi mag ñi li ñi wër environnement bi li ci biir rek li ci biti yépp ñu bàyyi ci xel waaye ñi ñaan ci sunum réew yàlla na fi yàlla def dal seytaane mi fi nekk di jaxase mbir di jaxase nit ñi di tax kenn du déggoog sa morom yàlla nañu ko yàlla tënkal ci darajaay qul ya ayyuhal kafirun mbokk yi qul ya ayyuhal kafirun bari aana luñ koy farataal di wax julit yi waaye bu ñu xamoon nag li ci nekk kenn du ko bàyyi ndax benn laa bu ci nekk faj na aajo ñu bàyyi ci xel al isharatu takfili man aqala junj daal doy na borom xel te iblis daal fu mu mën a nekk ci àdduna di ko jaxase soo jàngee xul yaa ayyuhal kaafiruun mu jël ay bagaasam toxu kon mbokk yi mi ngi noonu fanweer ak ñett ñu bàyyi ko xel dañ ko doon fàttali askan wi fàttali ko suñu bopp ndax sunum réew yàlla def fi jàmm mooy senegal nga xam ne moom rek la am ñu ni neen la su way su baaxee ñun la baaxal su yàqoo ñun la yàqul waaye dañuy ñaan rek mbokk yi comme que ñu ni neen la te su yëf la yàlla ñu ko yàlla sàmmal yàlla na yàlla teg loxo ci réew mi bi jaahi nabiyil karimi muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee dañuy fàttali li ñu fi daan fàttali rek saa su ne balaa ñuy sori mooy juróom-ñaari butéel yi di docteur boo xam ni day faj ci di faj ci baatin ñi bàyyi ci xel ñu waxoon ko te di ko baamtu saa suñu ñëwee benn butéel bu nekk ci butéelu kireen yi ku ko amul nga wut ndoxu teen ala kulli xaal benn butéel bu nekk ñu jàng ci ayatul kursi fukk ak benn laqad jaakum rasulun min anfusikum fukk ak benn ñu jàng ci wa sama wa taarix fukk ak benn nga tëje ko benn yaasiin wal quraanul xakiim gis nga mbokk mi soo ko defee day af ko ci juróom-ñaari butéel yi benn bu ci nekk nga def ko ci soo ndekkee ba pare nga jàng 33 fatiha nga naan soo añee noonu soo reeree noonu gis nga mbokk mi ku ci farataal di jàpp de ba moytuwul di nga yéex a dem hôpital mbayit lu nekkoon sa yaramit nga waroon dem hôpital soo koy farataal di jëfandikoo bés dina ñëw nga dem hôpital mbokk mi ñeen la taxoon ngay dem ñu xool ko dootuñu ko fa fekk lu tax ñi ne nuurul yaqiin leer gi yàlla def ci ayatul kursi yi def ko ci laqat laqad jaakum def ko ci wasamaa wa taarix def ko ci seen xarit suñu xarit seen soppe suñu soppe muy yaasin wal quraanul hakiim eh, loolu mooy dugg ci sa biir yaram mbokk mi ba la fa nekkoon réer nga dem ci médecin mu xool la ne la yow di def sa mbir mi dafa mel ni nekkatu fi wala boog yàlla féexal na la kon mbokk yi ñu bàyyi ci xel muy am solo lool wa fi lmaai yusrun wa fi lmaai fatxun wa fi lmaai sirrun adim لا سيما هؤلاء الآيات fihin khayratun la tuaddu la ولا gis nga روات لنا نك yi nga boole def ko ci ndox mi yàlla dina la ci defal lu kawe sa njort kon mbokk mi mbir mangoog muy lu am solo ndax laysa fi dunya siwa amrayni muhimmayni fi xayaati l insan aw al al ula asixa al kaamila fi jismi l insan wér gu mat sëkk mooy tax nit ki jullee mën a rafet jaamu yàlla mën a sell xalaatam mën a sell demam ak dikkam mën a sell lu mu yootu yàlla jàppale ko ci lu mu sumb mu taxaw yaa ngi koy mën a ame bi sixatin kaamilatin ci wér gu mat muy bu jëkk bi ñaareel ba mooy ki nga xam ne kii it dooleem bari na mu mën a yóbbu nit fu ko neexul dugal nit fu ko neexul kooku mooy alfaqru muy pauvreté di ñàkk ñàkk nag mbokk mi soo bëggee yàlla dimbali la saa ne doo ñàkk ba jaaxle te saa yoo jaaxle yàlla ñëw jàppal ci li ñuy bëgg a wax muy lu am solo boo demee ci sóoratu Israa saar bu ñuy wax Israa ci 69 ba 70 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وردك ستسان سوسان تدسات مبكم بسالتنا تقول دي بو نيوي تي تالاتا بي نيوي اتبتي تي سورة إسرائيل nga jëlaat 79 ba 80 muy bismillahi arrahmani arrahim wa qul rabbi adxilni mudxala sidqin wa واخرجني مخرج صدق واجعل li min ladunka سلطانا nasira muy la am solo nga def ko 666 bésu talaata ba mbokk mi nga dem ci sóoratu naxli ci 79 ba 80 nga jël aaya ba ca tegu muy bismillahi arrahmani arrahim wallahu jaala lakum min buyutikum sakana wa jaala lakum min juludi alanami buyuta tastaxifunaha yowma zanikum wa yowma iqamatikum wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wa mataan ila xiin 313 ñeenteel bi nag mbokk mi muy bisu alxames nga delluwaat ci suratu naxli 80 ba 81 nga jël ko muy bismillahi arrahmani arrahim wallahu jaala lakum mimman xalaqa zilaala wa jaala lakum min aljibali aknaana wa jaala lakum sarabila taqikum alxarra وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون هؤلاء الآيات الأربعة فيهن خيرات لا تعد ولا تحصى gis nga ñeenti aaya yi mbokk mi oor a ngi ci jamaa ngi ci château ngi ci lépp ngi ci balaa nga koy xam rek nga taqoo ak moom ndax yàlla aayaam yëpp ay mbir la aayaam yëpp ay njëriñ la allahu alam xam nga ko wala xamoo ko li ñuy wut yëpp mi ngi ci alquranul karim li ñuy seet mu ngi ci alquranul karim li ñuy daw ci suba ba ngoon jot di ko dàq amaana ñu jàpp ko amaana duñ ko jàpp buñ ko dàqee jëmale ko ci alxuraan daañ ko fa fekk mu toog di ñu xaar wa fi alqurani ma huwa shifaun linnaas wa rahma gis nga mbokk mi lépp lu nit soxlaw lépp lu nit ittewoo ci dundam moo xam wér am am aaju gu faju nga yootu dara nga bëgg dara ak nu mu mënti tëdde dellool ci alquranul karim yàlla woon la yoon muy laam solo lool kon nga gis ni ñeenti aay yi ci jàpp mbokk mi doo sonn ci sa dund mukk saa yoo nare sonn yàlla ñëw ak mbiram muy lu jar a bàyyi xel kon mbokk mi mbir màngo nit daal sa dund da ngay xool li ci gën a am solo nga jox ko borom bi xool li ci gën a baax nga jox ko rabbu samawaati wal ardi te nag loo man-man mbir yàlla gën la koo man loo xam-xam-xam mbir yàlla gën la koo xam kon mbokk mi nañu jël sunu mbir jox ko ki nga xam ni ki moo xam sunu lépp xam sunu biir xam sunu biti xam sunu kër xam suñuy njaboot xam fi ñuy fanaan xam fi ñuy yeewoo xam suñuy bànneex xam suñuy naqar xam suñuy jafe-jafe xam suñuy yomb-yomb kooku mooy rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma wa ma taxta sara moom mooy ki nga xam ni kii laa yudrikuhu l uqulu wala al absaar wala yantahi ilayhi basaru naadirin fi majdi jabaruuti kilifa gu mag gàngoog mbokk mi nañu wax ak moom te diis ko sunu bopp kon mbir màngoog ñu bàyyi ci xel dañu waxoon dañ doon wax rek li alquran waxoon muy fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fàttalil ndax fàttali dafay baax ci jullit ñi mbokk mi dañuy ñëwoon ci alxamis bi paase lu mbokk yi di ñaan saa ñooy ñu bamte ko muy wadduha wal layli waxoon nañ leen ni mbokk mi su la yàlla mayee sa boroom kër ngeen nekk ci néegu sëy du ngeen juboo du ngeen déggoo te du ngeen neexoo bari aana ñoo xam ne ñi bu ñu nekk bu ñu sañoon soxna si leen yàlla may dara du leen tàggale waaye bari aana it soxna soo xam ne si su sañoon ki ko yàlla booleel dara du leen tàggale waaye mu mel ni rek am na lu dox ci biir lu kenn mënul wax ci ñoom ñaar ba tax soo gisee sa morom sa xol tàng wala kenn ki bu gisee morom mi xolam tàng du ngeen déggoo du ngeen juboo du ngeen ànd nekk benn te yéen ngi am njaboot gu ngeen war a uuf te yéen kat yéen a war a gunge njaboot gi su neexee yéen a war a gunge njaboot gi su naqaree yéen a war a gunge njaboot gi kon mbokk mi ñaari way dencante bu ñu nekkee ci benn kër juboo te xamuñu lu tax di dëngoo te xamuñu lu tax waaye ku nekk soo gisee sa morom sa xol tàng te doo xam lu tax muy lu jara bàyyi xel lool bari aana ku nekk ci say jékki-jékki am jafe-jafe yu tar ak sa borom kër bari it borom kër guy am jafe-jafe yu tar ak njabootam am na koo xam ne kii nag bu sañoon njabootam du tasaaroo du tàggoo ak soxnaam e, yàlla déggale leen déggale njaboot gi ci seen biir ñu ànd nekk benn borom kër gi jiitu soxna si topp ci xale yi topp ci dara gënul neex ñaari way dencante yàlla may leen njaboot ñu uuf njaboot gi di ànd ak njaboot gi ba njaboot gi màgg walbatiku óof leen di leen dundal di leen sàng di leen yiir ba la yàlla namm ca ñoom yàlla def ko ñu walbatiku taxaw leen taxaw bu rafet jullit bu nekk moom ngay ñaan yàlla ku sañoon kuy màgget màggate ci say say loxoy njaboot ku sañoon nit kuy génn àdduna yàlla defal la ko ci say biir njaboot ñu taxawu la uuf la jàppale la waaye bu ñu tasaaroo du lu gën su yaay demee bàyyi fa doom ya du lu gën su baay demee it bàyyi fa doom ya du lu gën kon mbokk mi dafa mel ne am na la xew am na lu nekk ci biir sëy yi di tax jëkkër yeeg jabar yi duñu déggoo wala jabar yeeg jëkkër yi duñu déggoo te kenn ku ci nekk ci moom am nga ak sa morom jabar goo xam ne gi boo du ñu tasaaroo suñu gisee ba dem ba gimmi bu ñu ne gestoo gis seen pàpp waaye bu ñu gis gestoo it gis seen yaay loolu de mbokk mi am na solo lool waaye suñ ko bëggee jullit lu mu bëgg lu ne daf koy ñaan boromam ñaan gi nag mooy lii ñuy bëgg a wax ñaan gi mbokk mi mooy lii ñuy bëgg a wax ñu bàyyi ci xel li ci jëkk mooy da ngay jàpp ba set soo jàppee ba set nga julli fukki rakk ak benn rakka bu ci nekk nga jàng benn fatiha ak benn wadduha wal leyli nga door a ñëw ci onze onze yi nag onze onze onze yi am na solo onze onze yi sirru bu mag mi ngi ci ñu bàyyi ci xel te teewlu ko te déglu ko gis nga mbokk mi soo defee su julli ba pare nga jël sa kurus nga wird astaghfirullah 111 boo pare nga def salaatu ala nabi 111 soo pare nga wird allahu ya rahman ya rahim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 ndax aaya bi onze la muy la am solo lu jarabay xel kii nag mbokk mi soo koy faratal di def boo paree nag nga jublu penku nga ñaan sa boroom tàllal say loxo wéetal sa borom toroxlu jébbal ko sa bopp te ñaan ko nag njaboot gi yaa ilaahi ya rab yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga déggale ak sama njaboot maa ngi lay ñaan nga déggale ak samay njaboot yàlla maa ngi lay ñaan nga def yërmande sama diggante ak samay njaboot bu ñu féwaloo bu ñu tasaaroo bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo kenn ku nekk na yërëm moroomam mag jiitu rakk topp ci borom kër jiitu soxnaam topp ci kon mbokk mi lii daal soo koy def def ko bi niyatil xaalisati mag ñu jëkk ña day seen njaboot daawul tasaaroo ndax kat du ñu génn néeg bi du ñu dem duñu dikk ñu ngi jàpp seen kurus rek jiblu penku te naan yaa rabbi yaa ilaahi laka xaali wa xaalu usurati wa laka zurriyati kullaha bi yadik yow rabbu samawaati wal ardi dénk naa la samay njaboot yow yaa ma leen jox aw ma doole ju ma leen mën a jubbante liy jubbante ko ci ñoom fa mu nekk sa loxo rek moo fa mën a àgg muy seeni xol ak seeni xel sa loxo rek bu sama samawaati wal ard moo fa mën a àgg dénk naa la njaboot gi nga soppil ma leen su ma fi nekkee ak bu ma fi nekkul su ma teewee ak bu ma teewul maa ngi lay ñaan yow rabbu samawaati wal nga tegal ma samay njaboot ci siraatan mustaqiman moo tax lii moo taxoon sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa daan wax ni adduaau silaaxul mumin ñaan mooy ngànnaay jullit ndekete aajo yi jafe yi jaaxle yu bari bopp yu tëju yi bopp yu ubbi yi li koy tijji di ko faj yëpp du lenn lu dul jullit tal loxom yàlla jullit dee yoon teeg boroom wax ko say aju ci zaahir ak ci baatin ndax boo ko defee kat mbokk mi asa an yabasa asa an yabasa allahu alayka maqaaman mahmud wa ma dalika ala allahi bi aziz yàlla mën na la defal lu kawe sa njort ci njaboot gi ci kër gi ci ñi nekk ci kër gi yëpp yàlla tàppe xol yi ñu ànd nekk benn jàppalante yërëmante dimbalante li wajhi laahil karim kon mbokk mi mu ngi noonu xéewal gi moo baax ci njaboot gi njaboot gi tasaaroo soxna yi dul déggoog seeni borom kër borom kër yi dul déggoo ak seeni soxna ku koy farataal di def daal mbokk mi soo koy def nag sopp nañu nga def ko diggante onze heures zéro minute wala onze heures une minute ñu baamtuwaat ko onze heures zéro minute wala onze heures une minute nga door ko commencé na fekk na nga pare sa yëpp dàkk ko ci onze heures zero minute wala onze heures une minute rabbu samawaati wal ardi day mbokk mi lu muy def lu ne dafa am nu muy tëdde nañ ci bay xel euh, kon mbokk mi mi ngi noonu Wadduha ak xéewalam ku koy def daal sa njaboot du tasaaroo di doo dëngoo ak say njaboot doonte dëngoo ngeen ba pare sax yàlla mën naa dawal yërmande seen biir sa soxna noonu sa njaboot noonu te nag mbokk mi nit daal bu ngeen xasee am njaboot li gën ba gën te rafet mooy ngeen ànd yéen ñaan ñëpp uuf njaboot gi su neexee téye leen su naqaree téye leen su jafee téye leen ndax nit amul lu dul njabootam njaboot nag mbokk mi bari aana yu jafe-jafe du dugg nga yaakaar ne leneen la fekk seytaane moo ci rax di wëlbati seeni xool di nga gis baay boo xam ne bii doom da koy romb du ko nuyu nga gis doom joo ni ne day romb waajuram te du leen nuyu du wax ak ñoom du jëflante ak ñoom du leen nuyu waaye nañu bàyyi xel ni du seeni tayeef du seeni pexey bopp xanaa kay li ci ëpp pexe seytaane la rek ndax waajur ak nu mu neexe waajur ak ni mu ni bëggee njaboot soo ko rombee nuyu woo ko wax ak moom rek am na la xew ñu bàyyi ci xel waaye doomit na xam ne waajur yàlla dala cee teg natt bu rëy su la dooree jàppal su la bëmaxee jàppal su la waxee wax ju naqari jàppal su la jànnee jàppal su la récité jàppal soo defee lu baax mu ne li nga def dara baaxu ci jàppal kooku mooy waru garu doom ci waajur su neexee téyel su naqare téyel yàlla moo ñu ko digal wa bil walidayni ihsaana nañuy fonk suñuy waajur yi di leen taxaw di leen nemmeeku bu ñu feebaree ñu xam bu ñu nekkee ci jafe-jafe ñu xam bu ñu xiifee ñu xam bu ñu maree ñu xam ndax kat jaamu yàlla gu rëy mënta weesu ginnaaw juróomi julli nga toppatoo sa ñaari wayjur muy lu am solo lool loo xam ne lii mbokk mi fi mu mën a jëme nit bari na toppatoo sa ñaari waajur bu ñu xiifee nga taxaw bu ñu feebaree nga taxaw bu ñu amee soxla nga taxaw bu ñu soxlaa benn benn boobu rek nga yor dese wa beneen jox leen ko toog ndax doo ko rëccu kon ah, xaqul waalidayni ngoog mbokk mi muy lu am solo lool doom ju nekk war na ko bàyyi xel waaye it nañ bàyyi xel ni doom ju nekk dama bàyyi xel ni sama waajur wi bu sañoon buy màgget ci loxo yi doomam lay màggete ndax yërmande bi am ci diggante doom ak waajur foofu rek la am amul feneen kon ñu bàyyi ci xel bu baax waaye it waajur yi nañu ñaanal seeni njaboot ci Wadduha wal layli bari aana loo koy farataal di ñaan yàlla mën a soppi say say njaboot bu ñu tegul woon ci yàlla ci yoonu baax yàlla mën na leen cee teg ndax jullit mënul soppi moromam jullitam yàlla rek moo mën a soppi nit nit a ngi am melokaan boobu yàlla rekk moo ko ci mën a génnee nañ ci bàyyi xel ñu baamtuwaat ko mbokk mi ñu teewlu ko muy lu am solo ci njaboot gi dañ leen wax ni da ngay jàpp ba set nga def astaghfirullah 111 salaatu ala nabiyi 111 soo paree nga wérd allahu ya rahmaanu ya rahim julli gi nag waxoon nañ leen ko fukki rakaa la ak benn muy 11 benn rakaa bu ci nekk nga def ci benn faatiha ak benn wadduha su jeexee di nga ci am 11 ci rak fukki rakaa ak benn amaale 11 ci saar yi nga jàng muy bétey ñaari yeneen nga ñëw ci allahu ya rahman ya rahim mille cent onze soo paree nag nga jàng wa duha wa leyli ndax ay onze la nga jàng ko onze fois muy la am solo mbokk mi loo ci ñaan rabbu samawati wal ardi di nga ci gis lu kawe sa njort gis lu yéeme ci wa duha wa leyli wa duha wa leyli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 gis nga innaha suratun karimatun wa sharifa saar la bu bari njëriñ mbokk mi nañ ci bàyyi xel kon mbir mangoog njaboot yi tasaaro yi borom kër yeeg soxna yi nga xam ne mënuñoo déggoo te bëgg a déggoo ànd nekk benn uuf seeni njaboot nañ ci nañuy bàyyi xel ci wàddu xewal léegi kon su ko defee mbokk mi dañuy dellu siwaat kal aadati comme niñ ko daan defee rek ñëwal leen ci li nga xam ne nit ñi dañ koy ñaan ñu baamtu ko saa yu ñu ñëwee ñi jaaraat ci ndax fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fàttalil ndax fàttali day jëriñ jullit waxoon nañ leen yi ñi bëgg a lim yëpp te ñi fas yéene cee jaaraat te di ko fàttali askan wi benn bu ci nekk ñi bëgg ci jaaraat bu ñu ñëwee di ko fàttali askan wi muy la am solo lool nit soo amee sa soxna mu war a sëy si sa biir kër te sëy seegul yaa ngi koy waajal ñu ne des na une semaine duggal ci biir néeg bi bu desee ñetti fan wala ñeent wala juróom néeg bi seet bi di wàcc ngay dugg nga jàng fa jublu penku nga jàng fa aoudu billahi min alcheytaani arrajim 66 nga jàng fa bismillahi arrahmani arrahim 66 nga jàngaat fa bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ard wala fi lsamaai wa huwa samin alim nga jàngaat ko moom it 66 gis nga mbokk mi néeg boobu day bu fa soxna si sëysee ba moytuwul yéen ñaar di ngeen màgget te du ngeen tàggoo ak lu mën a am it yàlla dina leen téyel seen sëy boobu téye ba gën a rafet ci téye ndax danga nga ciy jiital loo xam ne li seytaane mooy jiitu ci néegu sëy yi balaa seet yi du dugg ci biir néegi toog fa lu ñëw mu yàqu ko mooy sëy yi nga xam ne mbokk mi ñaari weer ñett mu yàqu ndaw sa dem sëy yi juróom benn weer juróom ñaari weer sëy ba yàqu mu ñibbi kër baayam dafa fekk ni nañ ci bàyyi xel ba muy sëy si ca kër ga seytaane jiitu na ko ca bërëb ba dafa ay mbiram bu ñëwee du fa yàgg waaye soo jiitoo seytaane ci biir palaas ba ci biir bërëb ba muy fanaan nga jiital fa lii ñuy bëgg a wax muy aoudu billahi min alcheytaan arrajim 66 bismillahi arrahman arrahim 66 nga jàngaat ci bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru ma ismihi shay'un fi l wala fi sama wa huwa samiun alim 66 seytaane bu ñëwee ci bunt bi la yem day naa fii de jiitu nañ ma fi fii de yama daan yàq bi moom bokk ci bii am na lu fi jiitu aw ma fi place su ko defee soxna si bu ñëwee yàlla dina ci teg loxoom ngeen ànd ànd bu yàgg benn jafe-jafe du am kon mbir mu am solo ngi noonu waaye solo gi yemul foofu rek solo gi àgg na ba ci boo amee bagage yu bees bëgg yàlla barkel ko teg ci loxo mu jëriñ la jëriñ bu am solo gis nga bari le baaxul barkel rek moo gën bari aana ku yor mille francs mu jëriñ la palaasu junni waaye bariñ nag ku yor junni Eh, te du ko jëriñ palaasu ñaar kon mbokk mi bari du mbir mi mbir mi mooy barkeel su ko defee loolu la yàlla may lu bees loolu ngay bëgg yàlla barkeel ko te jëfandikoo goo ko jàng ci aouzu billahi min asheytaan arrajim 66 nga jàng ci bismillahi arrahman arrahim 66 nga jàng ci bismillahi alkaafi بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم 66 ñu ne déet ndax foofu la yem ñu ne déedéet soo amee oto bu rafet bu bees boo jënd dawala goo ko dafa goo ci dara nga bëgg yàlla barkel ko sàmm ko teg ci loxoom jàng ci audu billahi min asheytaan arrajim 66 بسم الله الرحمن الرحيم سوسانسيز بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم سوسانسيز جسنجا نينا ñi ne ndax foofu la yem ñi ne déedéet ñi ne ak lan ñi ne soo amee pour la première fois ngi door a am juróom-ñaari at allahu alam école la allahu alam yàlla ma xam arab la allahu alam wala alquran waaye ak lu mën a am daal lu muy door dugg la lu muy door a dal jublu penku nga téye sa bopp xale bi nga jublu penku nga téye bopp xale bi ak sa ñaari loxo nga jublu penku xale bi jublu penku nga nga jàng aoudu billahi min alcheytaani arrajim 66 ci bopp xale bi ba pare nga jàngat bismillahi rahmaani rahim 66 ba pare nga jàngat bismillahi alkaafi bismillahi shafi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiun alim gis nga xale boobu day mbokk mi su dalee école ba école ba di jeex lu mu sumb lu nekk yàlla teg ci loxoom lu muy wut lu nekk dino ko am te xel mi dana ubbeeku ndax seytaane eh, laata mu lay jiitu ci xale bi jiitu nga ko ci kon bu ñëwee du am place xel mi dana ubbeeku njàng ma dana baax dana ci am ay ndam am ci ay manore am ci lu kawe seen jort muy lu am solo lool ñu ne ndax foofu ba foofu rek la yem ñu ne déedéet ñu ne ak lan ñine soamen sa doom buy dooro juddu nga xam ne mi ngi dooro juddu ci say loxo dara desul lu rek ludul nga nàmpal ko balaa nga ko nàmpal e, jublul penku nga jàng ci ween wi aus billahi min alcheytan alrajim ci ñaari ween yi 66 nga jàng bismillahi rahmaani rahim 66 waaye nga jàng bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadur maa ismihi shayun fi l ard wala fi lsama wa huwa samiun alim nga ëf ko ci ñaari weenu ndaw si gis nga seytaane dootu ci am yoon bu ñëwee it dootu ci am kattan te xale boobu ween woo bu ko nàmpee xel mi dana ubbeeku yàlla dina ko musal ci jàngoro yu bari yi yàlla dina ko sàmm musal ko ci tolof-tolof yi àdduna yi ba ba muy màgg yàlla dina teg ci loxoom ci moom waaye soo ko bàyyee nit ba seytaane ñëw jiitu la ca ween wa def ci loo xam ne lii du gën di nga gis ne xale bi su màggee day dëgër bopp naqaree waxal soo waxee du la dégg soo teree mu bañ nga jubbanti du jub fekk am na lu rax ci biir ca njalbeen nga te ko kon mbokk yi nañu bàyyi xel waruñu bàyyi suñuy njaboot seytaane diñu ci jiitu di ci teg loxoom te ñun ñu fi kon muy lu jar a bàyyi xel bu ñu bàyyi seytaane defi mbiram te alquranul karim nekk fi muy lu jar a bàyyi xel bi ci mujj nag mooy ñi nga xam ne ñii dañuy tëdd ba guddi di tiit di am lu ñuy gis lu leen di tiital wala nga tëdd ci lal bëgg jóg mu mel ni dafa am lu lay bës ci kaw lal bi ba doo mën a jóg yu mel noonu ak tiit di yuuxu ak yeneen yi ci topp yëpp mbokk mi balaa nga tëdd ti guddi tëddalal jiitalal njaaxaanaay moom la gën a taamu soo jiitalee sa njaaxaay naay nga tëdd li ngay jëkk a def mooy aoudu billahi min asheytaan arrajim 66 nga teg ci bismillahi arrahman arrahim 66 soo pare nga teg ci bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi sheyun fi l ardi wala fi lsama wa huwa samiun alim nga door a tëdd nelaw mbokk mi dinga nelaw ba yeew loo la yàlla di woon lu nekk dina leer te dara du la yàqal say nelaw dara du la fitnaal dara du la tiital te dinga nelaw yi nelaw yi dal yeewu ci yeewu gu dal muy la am solo lool mbokk mi kon ndekete eh, mbir yi solo gi nii la tollu ñu bàyyi ci xel te xam ne lii moo taxoon nag sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa waxoon ñu ne ñaan daal mooy ngànnaayu jullit ngànnaay nag bala ngay xam ne am na solo ngay dem guerre yor ko ci ngay xamee ne gannaay am na solo waaye ngànnaay balaa ngay xam ne am na solo nga gànnaayoo ki nga xam ne kii lu yëngatu mooma luy dox ci ngelaw li yég na ko lu nekk ci biir lëndëm gi xam na ko lu déplacé wu fa nga jóge ba fa ngay jëm yég na la booy dem te tàggoo ko xam na foo jëm xam fi nga jóge doonte waxoo ko boo toogee di xalaat li ngay xalaat ci sa biir te yëkkati woo ko waxoo ko mu jëm kaw xam na ko ba teg ko la nga ci jublu xam na ko li nga bëgg xam na ko kooku de mbokk mi bu ñu jaaxlee dañ ko war a diis suñu bopp buñ ko ko diisalut ubbil nañu buntam ndax ndax nee nañu udooni astajib lakum fa inni qarib ujibu daawata daay isa daani ee yéen jullit ñi ee yéen nit ñi ci kaw suuf suuf si ngeen di dox moomu leen ko sama suuf la maa leen fi indi ngir ñu ci dox ngelawli ngen di noyye maalen ko jox ngen di ci noyyi man natt ko ci seenug dund mu mat yi sëkk ci yéen ngelawli du ëpp ba metti ci seen noyikaay waaye du manqué it ba ngeen di ko soxla ma indi leen naaj indi leen guddi indi leen bëccëg indi leen lépp indi leen bépp meññent bu ngeen soxla di ci dund waaye indi leen ndox moo xam ne bii su ngeen koy naan ndox mi du soppeeku ndox mi du am odeur te boo ko naanee li muy def ci sa yaram euh, moo ëpp foofu li nga ciy jël ndax du la gaañ ci sa biir boo naanee ndox mi du tàng ba lakk la du yàq ci sa biir dara lu dul xanaa dafay gën ko da koy gën a defaraat te ndox moomu lépp moom kon bu wëlbatikoo moom rabbu samawaati wal ardi ci loolu yépp ne dayaluma ci yéen ba léegi ñu ne ko ah, lu tax mu ne dinaa leen wax wax boo xam ne bi ci ngeen di xam ne man ak yéen ñooy ànd ba faw ñu ne ko lan boobu ban la mu ne ñu uduuni astajib lakum ak li ma leen defal yépp du teemale leen ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma leen ndax man li ma yor yàlla du jeex mun leen koo jeexal su ngeen doon dund ci suuf junniy at fukki junniy at juróom fukki junni at du tax sama rawitaay maa ci yéen manqué du tax sama géej gi jeex du tax sama ndox mi jeex du tax sama ngelaw li ngeen di nooyee jeex kon ku la defal lii bu lee ñaan leen ma ma may leen ngeen war ko mën a ñaan ma may leen bu leen ne boo jaaxle waxal ak man bu ñu jaaxle war a mën a wax ak moom kon mbokk mi mbir màngook ngoog wa fil qur'ani ma huwa shifaun linnaasi wa rahma gis nga li ñu bëgg yëpp mi ngi ci alquranul karim moo tax yàlla waxoon nañu maa farratna fil kitaabi min shay'in alquran daal man yàlla bàyyiwuma ci dara kon bir mangok ñi bàyyi ci xel muy lu am solo ñi bàyyi ci xel muy lu am solo amna na mbokk mo xamne bi ñaanon na ci jigen ji nga xamne ji dafa bëgg am njabot ban ñaan la wara mëna pur ñaan pour am njabot gis nga mbokk mi waxon nañ ko te dinañ ko nit su bëgge am njabot ci jigen nga bëgg yalla may la njabot gis nga rabbu samawati wal xamul kii mag la xamul kii xale la ki xamul mag la xamul kii xale la ki xamul kii ndaw la yàlla daal mu xam mooy nekkal mu nekk bu bëggul mu nekkit du nekk kon jullit dafa war di ñaan boromam dangay bàyyi mbokk mi ba dimanche ci guddi su fekkee ne yaag sa borom kër yeena nekk ngeen jël kenn ku nekk ci yenn kaas ngeen def ci ndoxu zam-zam ci biir kaas bi nga jublu penku mu jublu penku ngeen jàng faatiha juróom-ñaari yoon bu sell moom mu jàng faatiha juróom-ñaari yoon su ngeen paree ngeen jàng li ñuy bëgg a wax ci suratu mariyam muy bismillahi كهي عين سات ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني قفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب waj'alhu rabbi radiya gis nga nga jang ko juróom ñaari yoon nga tufli ko ci ndoxu zamzam bi nga naan ko soxna si naan ko ngeen topp ko ba mu am fukki fan ak juróom waaye nag sopp nañu balaa ngeen koy jëfandikoo na ngeen xool gëstu ba mu wóor leen ni weer wi feeñ لقد تلع القمر من وراء الغيوم وغمر بنوره تلك الرواب والشواطئ فظهرت القرى على أكتاف الأولية جن خلويروي خمن فينا لأول يوم ظهر القمر على صدر السماء بس بيروي فيني مي برمير جوربو نينا تيلويري فين بس بوب جن كوي كماسي جن نتكو di ko bàyyi xel mu bañ leen a rëcc bu ngeen xoolee ba xam ni laqad tala alxamar haadha al yawm weer wi feeñ tey ngeen commencé ko su ngeen demee ba nisfu layli sopp nañ ko ci nisfu layli daal mooy diggante min bi une ngeen jël seen maa u zam-zam ngeen sotti ko ci kaas yéen ñaar ngeen jublu penk kenn ko nekk ci yéen mu jàng juróom-ñaari faatiha su ngeen paree ngeen jàng li ñuy bëgg a wax muy bismillahi arrahmani arrahim كهيا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا كي دار سونين كو ديفي غود بما ام فنك جروم دنفك لقد اصبح القمر بدرا كاملا مفك نوير وي برون سيقضي الله حاجتكما وما ذلك على الله بعزيز yàlla ci mbaaxam dana faj seen aajo yéen ñaari way dencante yooyu bi ahsanil wujuh yàlla dina leen fajal seen aajo ca anam gëgën zam-zam lima shuriba gis nga nag zam-zam mbokk mi daañu ci ñëw bés ci bés yi wax leen zam-zam maa fiihi li nekk ci biir zam-zam minal manafia dinañ ci ñëw inchaa allahu bu ñu ko wax Euh, waxtu yi maye ci bés yi di ñëw incha allah ñu bàyyi ci xel muy la am solo loolu ala kulli xaal mbokk yi mi ngi noonu ki nga ko doon ñaan euh, li mu doon ñaan mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel bu baax ndax xam ni it wa ala kulli xaal jaaxle yi bopp yu tëj yi jafe-jafe yi ñàkk yu tar yi wéeri di yaram yi su ñu bëggee yàlla génn ñu ci teg ñu ci siraatan mustaqim fajal ñu ci suñuy aajo ci zahir ak ci baatin nañu dell ci kitaaballahi téeri yàlla bi bu sell bi wa huwa kanzul muminin te muy suñu trésor mbokk yi dañ leen di bàyyi léegi ak sunu euh, journaliste bi muy mi maram Njaay